ah bon c'est vrai que météo woon na nekkoon ci kanam mais xawoon na jafe boo defoon total loo xam ne moom la opposition bi amoon ak ñun loo xam ne ñoom moom la ñu amoon ñoom c'est vrai que treize union ñun benn rek la woon benn rek la woon donc euh, ñooñu rawoon quand même tuuti. loo xam ne euh, wóor na mooy c'est que bon soit ma nekk ci biir PDS jiitu ou bien mu mu jógee ci biir PDS créer sama parti parce que euh, amatuma yaakaar ni que dinaa nekk ci ginnaaw keneen parce que je pense ñëpp ñu fa nekk kenn ëpp ma base man dama dugg si politique bi pour xeex dinaa continuer di xeex boobu pour que euh, en 2017 eh bien ma samp sama noonu dem ci présidentielle. ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars.